jërë jënd a ngir mu wuutu bi fi nekk dip A319 boo xam ne am na ñaar fukkeet ba ñu koy jënd occasion la ko jënde woon maanaam deuxième mai la woon te it màgget gu mu màgget tax na atum njëkk bi dañu koy avance bu ñuy commandé li ci des bu ñu libéré avion bi ci la koy mottali l'observateur nañu waaye nag frais yi war a dem ci avion bi du loolee rek ndax ay aménagement war na ci ne président Macky sant nañu defal ci ministre yi ay cabine présidentielle yu am ci biir ay bureau ay toilette ak lal yoo xam ne bu ñu sonnee dinañ ci mën a bàyyeeko ndax nee na moom Macky Sall ànd ak ministre yi tukki gis leen ñu lemu ci siège bi di nelaw da leen di yërëm Le Quotidien nañu avion présidentiel bi ñu jënd bu doon nit a ñu ne dafa aawlu ndax fu mu juddoo fa la ko coow toppee ñu bari li leen ëllëm moo di fan la ñu war a mën a jëlee xaalis bu ñu toll ba koy dugal ci boobi la roppalaan Le Quotidien dolli ñu ci ne li gën a yokk jaaxle gi xiini mine gi moo di porte-parole gouvernement bi di Omar Gueye bi muy joxe xibaar bi démb ak di ca wax ak doon leeral tuddul woon benn yoon lu jëm ci mbiru xaalis nee na yëf yi secret la Cheikh Omar Sy mel ne ku naan ñu ci xët mu njëkk journal L'Info mi kan la yàpp kañ lañ jëndum avion doon secret défense ci réew mi avion commandement présidentiel bi waral coow li yéenekaay bi nee nañu téeméeri milliards la jar lii quotidien ne ko yeggul foofe roppalaan bi président Macky Sall jënd ngir ay déplacement juróom fukki milliards ak juróom-ñeent lay jar la tribune dëggal njëg gi 59 ba noppi tegal ñu ci ne ak lu avion bi mën a farata ndax mënee suta nekk ci réew mi mel ne Sénégal nit ñi di bëgg dee ndaxuk ñàkk koom-koom gi foto ñu lu ñu Les Échos dolli ci coow li moo di a bi ñu jënd dëgg la la bu rafet te mën a yaxanal waaye daraam wóorul moo waral ba bi ñu koy jënd am nay expert sénégalais yu ñu yónni fa ñuy defare roppalaan ba ngir ñu teewa lépp source waa wax ñu ne avion bi ñuy wax sax dafa bari ay lees waxul yu ci benn ca moo di bi la ko état bu Sénégal commandé woon politique ak libération mi ñu wax ne l'homme des affaires bii di Harouna Dia jot na démb fa la ñu ñaawloo bu baax a baax doxalin ak manipulation gi ñu ne moom la Harouna Dia di def ngir bëgg a gàkkal derub ministre environnement di Abdou Karim Sall ndawi COJER yu kane lii ci kaddu Ibrahima Sidiki Daaf mi leen jiite journal bi nee nañu tuumal nañu Harouna Dia nee nañu ci tànki war Macky Sall ci watey présidentielle 2024 yi ca la nekk ci ñi nekk ci waajal élection locale yi nañu xam ne mbir yi du yomb ca Tiwaawoon réew mi quotidien bind na amoon googee bari na fa ñu fa nekk ñu jàpp ne affaire bi Mamadou Diagne Sy Mbengue la te ndaje mi amoon keroog ci stade municipal ba wane na ko ñoom dañoo jàpp ne Abdoulaye Ndiaye Ngalgou cas la ci Tivaouane ndax Mboro la dëkk firnde li moo di baayam ne woon na maire bu Mboro frère amit ne woon na député bu Mboro bokkut ak Diagne Sy Mbengue mi nga xam ne doomi Tivaouane tigi la Al Amine moo ko tànnoon ci kaw proposition bu Macky Sall Ba aw ni A ci kaw Amadou Ba ko fi defati danañ ko diggaale ak yow ànd sàmm jikko yi ak ndaje mi ñu doon def keroog ngir di ci xeex mbirum góor jigéen ak lu ko daganal ci réew mi mi ngi daanaka ci mboolem yéen kaay ñu xëyandool le témoigné nañu niti diine yi ci réew mi ak askan yu jug nañu ànd xeex ak ngóor jigéen ngir mu bañ a dagan ci réewum Sénégal Sud Quotidien nañu fenn desul ci xeex bi muy ci Ndakaaru di ca Kees ca Mbuur ca Sédhiou ci gàttal mbedd mi yépp a génnoon ngir ñu bañ a daganal ak ngóor jigéen ci Sénégal Sénégal ak bi ñu fiy dégg bés bu nekk yëral xët mu njëkk ndaw bi Sall gi ñu fekkoon mu faatu ñu sànni ko ci ab foos yéenekaay bi ne nañu enquête ba dem na ba sori am na it kuñ ci jàppagum di benn xale boo xam ne nee na moo ko def li tax mu def ko nee na mooy da doon fayanto ak sëriñu daaraam ndax li ko sëriñu daaraam bi di pine dafa bari ngir mën a fayu loole nag moo tax mu jël doomu sëriñu daara bi dem sànni ko ci foos ba